dikkati naa réew mi lëj ni wañ turbine yéen naan koon fi mu ne day wér gu yaram moom lompoñ na ci réewum Sénégal fa yàllaaxu vox populi naan koon booba mbay ma ma nga saxe turbine naan koon ma yeggali rek dama ni la la nga xam ni moo ñu waroon faj ñun Sénégal loolee fi mu ne moo daal di lompoñ fa yàllaaxu muy wér gu yaram hôpitaux yi ci boppam ñoom ñoo daal di wopp dem ci l'hôpital daanaka jëlig sax faatu la ñu tegal ñu couverture maladie universelle ndeke yoo mooy bant bi nga xam ne moom la ñu nar a jafandu ngir daal di yegg teer njoogu man tey laa lay xamal nag ne problème mu Sénégal mi ngi dooree ci wér-gu-yaram ndekete am nañu problème prise en charge lal yi ci réewum Sénégal doyul rendez-vous yi moom boo ko wutee balaa nga koy am yàllaa xam ay spécialiste amuñu ko matériel yi ci boppam amul ci l'hôpitalu Sénégal terewul nag saa bu nu xëyee tànqal noo couverture maladie universelle di ñu xamal ni téeméer boo jël juróom-ñett fukk ci askan wi ñu ngi am couverture maladie universelle googee mani la ña koy wax nañu talal ba caaka njaay ndax fi mu ne réewum Sénégal ku ci nekk doy nga sa bopp sondage ku ne na laaj dëkk xaaleem ko keroog ba nga woppee yan jafe-jafe amoon ci l'hôpital yi njoogu naan dara tànk teqale wuñu politique ak santé Sénégal daal wér-gu-yaramam dina yàgg lompooñ ñu recruter ay médecins yoo xam ne ay ndaw la ñu amub xam-xam nekk ci réew mi yore seeni lijaasa defuñ ñu dindi wuñu te fa nga xam ne fa la ñuy nasee ko noccee ñu bañ a xool politique jël ñi nga xam ne am nañu lijaasa ya am xam-xam ba te fees dell place ba ñu daal di leen fay teg yéenekaay bi naan maan fii ci Sénégal bar na ci l'hôpital yoo xam ne malade ci kanamu médecin yi la faatoo ndax médecin médecins yi bëgg nañ waaye lees fajee moo newul seeni loxo xanaa amub yaakaar rek ci emprunt bi nga xam ne def nañ ko ci budget 2024 bi te naan bu pétrole bi tàmbalee bëx-bëxi ci réewum Sénégal ñu fay ko xaalis boobee mënees na ko dugal ci wér yaram ba tey jii bépp sénégalais nga xam ne am nga wopp fii ci Sénégal mënoo dem ca l'hôpital bu nëyi mënoo dem ca l'hôpital Val-de-Marne nga mën des ci réew mi fajoo fii ci Fann wala nga fajoo ci hôpital Aristide la Dantec wala nga mën a fajoo ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye wala El Hadji Ibrahima wala it l'hôpital Nabil Choucair turbine yéen a kaay naan man association yu fournisseurs yi nekk ci réewum Sénégal ña ngay naqar lu gré goo xam ne am na ci marché ministère de la santé bi di xam leen ni lanku na ab fournisseur sénégalais jël marché bi waaye la ñu jëlee ab taxañ daal di koy jébbal kenn loolee mooy jafe bi di xam leen ni amuñu jafe ci li ñuy wax gré à gré wala lay seen yitte fi mu ne moom moo di daal di séddale marché bi ba képp koo xam ne fournisseur la nga mën caa ñamus pàcc ñii buñ jëlee imagerie ñee jël tabax ba ñeneen ak ñeneen jël leneen ñu daal di koy séddoo ngir ñeneen ñi bañ a lompoñ vox populi naan maan fi mu ne wér gu yaram buy sukuraat ci réewum Sénégal baykat yi moom daanaka faatu noon fa yàllaaxu ba nuppi ñoom baykat gerte ndax njëg li nga xam ne ñi ngi leen koy wax ci réew mi arrangé wu leen diggante Thiès Louga Diourbel Kaolack Kaffrine ñoom ñi nga xam ne ñooy producteurs yi ne dañuy xool njëg yi gën ñu jaayee ko waa bitim réew fi mu ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci réewum Sénégal boo moytul du ñu nal dawlin ren Sidi Ba secrétaire général bu cadre concertation bu producteur agricole ca Kaolack ne 280 yi ci boppam buñ ñu ko waxee ñu jaay ko juróom-ñaar dërëm daañu ko perte buñ ñu waxoon jaay leen 315 wala 325 xel mën cee dal soo moytul la nga xam ni moo daloon huiliers yi daaw dana dal Sénégal fi mu ne ciy jafe-jafe tribune yéen kaay nan kon jafe-jafe day daanaka moog réewum Sénégal ñoo fi mu ne jafe-jafe wér-gu-yaram la ñu am yoo xam ni mar day taali askanu Bambilor ña nga toog ci nen l'école daal di manqué Bambilor ba mar day taali waa Bambilor ci boppam ñoo gën a jaaxle ci réewum Sénégal tribune yéen kaay naan ko déet daanaka Sénégal gépp a jaaxle di ndax ci xat ci xatee seeni suuf moom lu ñu ca def doyul deux minutes pour lire l'essentiel naan leen moo taxit bugaan gay danee nga naan jébbal leen ma réew mi su ngeen ma jébbalee réew mi day damay liggéey Sénégal doon seenub jaam salaire du ma ko jël turbine yéene kaay naan man keroog ci étudiant yu CFAS ya ma leen di xamal yoon woo xam ne mënees na ca jaaree ngir senegal am ëllëg gu ñoŋ l'info yéene kaay naan man ma ngay taggit Sidi min Niass naan ko ndokk bala Sénégal amee ndax buñ la amul woon wuti ko le témoin yéene kaay naan man nii day le président Macky Sall taggee ba mar day taali maître Abdoulaye Wade ni naan terewul ma nga taxawal ab décret boo xam ne mënees naa wote ba yenn heure yi Mimi Touré naan liy xeeñ neexul El Malick Ndiaye Pastef naan ko bu dañoo bëgg sàcc yéen ak sénégalais yi février nañ ko wax askan wi ndax pare nañu El Hadji Ibrahima Mbow ne xanaa xamu leen ni lii moo gën ci l'opposition bi turbine yéen kaay naan man en tout cas Pape Djibril Fall dem na caisse de dépôt et de consignation ba déposé caution ba nuppi booba lii ko di jéem may xamal ni Abdoulaye Sylla gi jaarale ko féminin lañ ko daal di dippee tribune yéene kaay naan maan booba Promoville ma nga ca Géejawaay diggante juróom-ñetti kilomètre voies yi defar nañ ko ñaar ci infrastructure moderne yoo xam ne def nañ ci juróom benn téeméer juróom benn fukk ak juróom-ñetti millions muy maison de la femme Mantoulaye Guène ak maison des associations daanaka juróom-ñetti milliards ak xaaj Promoville daal di koy def ci week-end bi premier ministre bi daal di dalloo yooyu la infrastructure réew mi quotidien di ma xamal ne boobu président Macky Sall mi ngi sàkku di lu yees diggante Afrique ak li des ci àdduna le soleil yéene kaay naan kon président Macky Sall nee benn relation diggante Europe ak Afrique su doon lu expiré la jeex na dees na ko saytuwaat tegaat yeneen bëgg-bëgg yu daal di yees laas yéene kaay naan kon boobu sàll na xoolub réewam ba nuppi ndax li ko wër moom ma ngay jëx-jëxi ca Mauritanie daal dinañ fay tëj jiit la woon Abdel Aziz fii ci Guinée Bissau ñi daal di seyal assemblée nationale li wër Sénégal nag jax di bëx bëxi vox populi naan man réew mi bëx bëxeegul sax réew moo xam ni dem nañu tey ba benn yaboy boo xam ne dañ ko daan maye cib soo mi ngi jar 400 jàpp 600 benn kaani kese doggub kaani